xew-xew bu spécial bu nga xamante ne moom moo am te mu nekk ay information yi nga xam ne gis nañ ngeen koy euh, jaarale fu nekk ci réseaux sociaux yi ñu ci doon tamit ci whatsapp yeeg feneen ak feneen mu di tëj bi nga xamante ne dañu wax ne dañ ko tëj euh, jàkka yi ki nga xamante ne moom moo di euh, docteur Khadim Mbacké looloo tax tey jataayu taxawu jàngat ñu doxantu si ba ci kër docteur Khadim Mbacké ngir wut si ay leeral ci information boobu lépp euh, xëy na peut-être bu ko waxtu bi may dinañ jàllal ci yeneen tomb mais di gën a am solo rek ñoo ngi toog ak ki nga xamante ne moom moo di docteur Khadim docteur Khadim Sunugal 24 moom lay ñu ci jotaayu euh, taxawu jàngat. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Abdou Khadir maa ngi lay gërëm ci euh, taxawaay bi nga taxaw ñëw gi ñëw laaj ma sama xalaat ci nga xam ne moom nga dégg. kon naa ngi ci gërëm Sunugal 24 jaarale ko ci yow. jërëjëf docteur euh, information bi circulé. te xëy na ay wax am ci mais gis nañ daal benn vidéo bu nga xam ne. Mhm. ñu ngi ci dindi pour daamul xadim. Mhm. ñu ngi sol ay tenues. Mhm. ñoom daal dafa mel ne sax dañuy joxe information bi date lay bi ñu tëjee bi nga xam ne dafa ñëw mosquée bi. mais tëj nañ ko parce que dafa mel ne dañ fi dégg ay genre dibaat yi. <laughs> et ñu daal di jël li nga xamante ne moo di jàpp ñu jox ko bu ñu wax Cheikh Bass. nu nu loolu demee kañ la am ak nu mu demee. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala waaw jàkka ji moom man mi wax ak yow maa ko tabax euh, ci l'an 2000 euh, ci euh, fa ma ko tabax nag ab sën la woon sën mooy décharge publique boo xam bi yàgg na fa lool mën fa fanweeri at mel noonu waaw ci ci dend ak sama kër sax fi ñuy wax gaar bu mag léegi nag bi ma ko gisee nag yàlla dogal yàlla def ci sama xel ne naa ñaan ndigalul euh, xalif bi boobu Serigne Saliou bu ma fi nekk naa ko ñaan mu may ma ma réhabilité décharge bi maanaam nettoyé comme set wecc ma tabax fa jàkka loolu bi ma ko waxee Serigne Saliou da cee am bànneex ba nga xam ne sax la ma jox ëpp na ñeent yoon la nga xam ne moom laa jël ndax la ma jox dafa bari woon ba pare ba nga xam ne mënuma koo yéwénal ma jël rek li nga xam ne mën naa ko defar euh, tabax fa jàkka euh, tabax fa ab école Euh, ngir waa quartier ba ba loolu amee wax dëgg yàlla sëñ bi sax bi mu ko déggee mu déggee ñu ngay tabax jàkka ja dafa ñëw guddi seet ba xam ndax dañ koo ñaanoon barab bi ngir def fa jàkka comme ni ko waxee wala dañ koo ñaan dañ koo dañ ko koo ñaanoon pour leneen moom pour vérifier xam nga moom ku teey la woon lépp lu muy def da koy vérifier bi mu gisee nag ñu ngi tabax jàkka ji da cee kontaan waxaatu dara lu ci jëm te sax maa ngi lay xamal ne lu jiitu loolu Euh, Serigne Saliou moom recevoir na ma le 17 janvier 1997 waaw booba dama àndoon ak ay étudiante américaine ñu ne dañoo bëgg siyaare ji Touba ak xalifa ba ma ànd ak dem fa waaye keroog wax dëgg yàlla nam ma accueillir kenn mosuma ko accueillir ci ci ñi nga xam ne ñoo ñoo jiite Touba ci ci jamono yu mujj yi waaw accueil bu rafet euh, kon euh, jàkka jooju mi ngi fonctionner depuis vingt ans depuis vingt ans musta am problème ndax kafay fay ña fay jiite waa dëkk ba lañu waa dëkk ba lañu eh, ña fay nodd ña fay ñay topp jàkka ja ña fay julli ajjuma ñoom ñëpp ci waa dëkk ba lañu ñëpp xam nañ leen ñëpp xam nañ leen waa dëkk ba lañu eh, boobu ba tey wax dëgg yàlla dara xewu fa fan yi nag nu bëgg a tabax foofa ab eh, benn saal pour jigéen ñi ndax jigéen ñi dañ daan dañ daan ñëw julli ci mbaar toog fi suuf mu gis na nag lii jamono weesu na ko moo tax ñu ne woon dañu fay tabax am ba ab euh, benn saal boo xam ne bii euh, jigéen ñi danañ ci mën di julli bu amee ab daje boo xam ne waa quartier bi ñoo ñoo ko organisé ñu ñu dem def ko fa bu leen neexee euh, ak yu mel noonu ca suuf saal ba it def nañ fa ay ñetti boutique yoo xam ne affaire waqf la nga xam ne maanaam frais jàkka yi buñ buñ ko luyee danañ ko ci mën a génnee waaw loolu moo fa xew lu bees bi ñu koy def nag am ñoo xam ne ñii dañoo ñaawi làmmiñ eh, ñu dem ci eh, président de la euh, euh, le wax ko ko moom itam mu xaw a ñaaw njort ba tax mu yebal nit ne kon nañu arrêté travaux yi waaw nañu arrêté ci jamono yi barki démb rek jamono yi rek bi ma ko déggee nag mu bett ma ndax booba dafa fekk ay ab entrepreneur ma nga fa di def liggéey bi bu ma déggee ñu ne arrêté nañ arrêté nañ euh, nag man tam def naa enquête ba xam ñu ko waral bi loolu amee nag wax dëgg yàlla eh, eh, yëgal naa ko mbokk yi waxtaan jeeg ñi nga xam ne samay kóllëre lañ ñëpp eh, ñoom itam ñu def ci ay jéego ba yàlla dogal mbir mi yéwén yéwén démb sax dama naa ne yéwén na ba tey jii ñi doon liggéey tàmbaliwaat nañ seen liggéey bi nga xamee nag maa ngi koy yëgal mbokk yi dama koy yëgal kilifa gu mag a mag goo xam ne ngi ko jege xalif général bi la kooka dem waxtaanteeg xalif général bi eh, moom itam mu d'accord ci ne ko jox naa la dossier bi nga toppatoo ko kooka mi ngi koy toppatoo eh, wax dëgg yàlla lam ma wax ne ko moom la xalif général bi wax itam wax yu rafet la lool lool lool waaw rafet la lool waxi waxi waxi kilifa la daal waxi waxi ab julli dëgg-dëgg eh, ñooñu nag wax dëgg yàlla kilifa gi nga xam ne moom laa santoon mu wax ceeg sëñ Saaliwu dafa bari maslaa ba euh, wax dëgg euh, mu jaar ci ay mbooloo yu bari pour wax leen ko ndax bëgg daal mën a lu lu mu def kenn ko yàq waaw boo ko yëgalee ñëpp xamal leen ne ci turu sëñ bi lay régler problème boo xam ne dañ ko wax euh, bañ bañ kenn yàq ko moo tax mu dugal ci ñu baree bari léegi nag kookee nga xam ne kenn ci kilifa yi mu yi mu doon waxtaanal moom moo fa yóbbu mbooloo wala moo fa yebal mbooloo te wala moom sax dafa mel ni. Eh, am nañu carax maanaam <laughs> du ñoom ni rek mais dafa am ñoo xam ne ci profité eh, daal di ñëw bu ñëwee dajalee ñi nga xam ne ñooy julli ci jàkka je eh, daal waxtaan ak ñoom waxtaan wax ni sax ci ca début ba dafa xawoon a jafe waaye mujj na sedd guyu ñu waxtaan waxtaan wu yi wu yibee ba fa ñu teqali ko mooy ferme jàkka ji pour quelque quelques quelques minutes. quelques minutes après ubbi nañ ko fi nee ne ñu ngi fay julli. waaw te lii nga xam ne mooy problème bi moom wax dëgg eh, xam nga Touba fi mu nii dafa doy waar waaw dafa war ay mbooloo yoo xam ne léeg lekk sax man a même sëriñ bi sax du leen contrôler waaw waaye daal ñu ngi ciy dox ay jigo ay jéego yu rafet te ñu koy def ay kilifa lañu ay mbokk lañu ndax affaire bi yëpp nag ay mbokk la ay mbokk la la la la concerné waaw kooku xam naa ñi bare bare xamuñ ko waaye wax dëgg yàlla eh, moom benn benn benn benn famille la daal eh, ci loolu mbir mi sedd nga am sedd na ubbi nañ jàkk ji nit ñaa ngi koy jiite nit ñaa ngi fay julli te itam na meloon la melaat daal fa lañ jullee takkusaan tey waaw. léegi euh, kañ nga commencé nemmeeku ne euh, dañ cee dugal ci bokkul wala kañ nga commencé sentir ne en tout cas am na ñuy dox ci jëm ci jàkk bi xëy na euh, jóg ba di ko fermer daal ci anam bu nga xamante ne jàkk bi. waaw bi daal moom tey lañ ko décidé waaye defuñ ko ci ndigalu sëñ sëñ bi ci boppam. kon dafa am ñeneen ñi ci ndigalul sëñ. wallaahi ci ndigalul maanaam kilifa gi nga xam ne moo yabale moom ci ci ci turu sëñ bi lay lay liggéey eh, waaye nag bañ jógee di dem damaa ragal ne dafa am ñu topp ci ñoom ñoo xam ne ñii eh, mooy rek nit ñi nekk Touba nga xam ne seen seen yéene moom yàlla rek moo ko xam ñu dugg ci waaye bañ demee ca jàkka ja ñañ fa fekk bañ waxtaan ak ñoom ñuy waa Touba comme ñoom eh, déggoo nañ ci ay kàddu ca finalement ba ca fin ba tëj gi wax dëgg yàlla diir bu gàtt la Eh, te dañ ko dañoo delloowaat caabi yi ña nga xam ne ñoo ko yoroon fa lañ jullee takkusaan te xam ne ñi nga fay julli. loolu tax bi ñu xoolee noonu ci vidéo boobu di daw ngeen gis ne am na ñu nga xam ne waaw waaw xuddaamul xadim daal mbokk moo ko jiite woon ku ñuy wax Hamsatu eh, sëñ Amsatoom sëñ Abdoulaat léegi dégg nañu ne moom da koo jox keneen ku ñuy ba siiru Cheikh Thioro ñooñ ñëpp ay mbokk lañu wax dëgg yàlla ndax kii sama doom la kii sama eh, sama sama doomi nijaay la. kon amul amul problème te itam mbirum jàkka moo xam nga mbirum yàlla la maanaam kenn ku ñu tuddi ab sëriñ doo gis jàkka nga fay def loo xam ne lii day indi indil ko jaxase ndax defoo ko Xaadim Mbàkke defoo ko keneen yàlla nga ko def donc donc amul benn problème la yaakaar naa hmm. li nga xam ne nag moom la ñuy wax police religieuse wax dëgg yàlla man xóoma leen ndax barki dem lañ leen sos waaye yaakaar naa ne eh, police su état bi nekk ci tuubaa eh, du fa bàyyi kenn mu fay def loo xam ne lii day yëngal dëkk ba loolu moom jeex na moom police police républicaine ba fa nekk ak gendarmerie ba léegi dootuñu bàyyi kenn muy def loo xam ne da ko def ci turu sëñ bi te sëñ bi yëgu loolu dootu am bon police religieuse bi xawma ko waaye rafet naa njort ci ñoom bu fekkee ñu ngi tënku ci ki ñuy wax sëriñ Amsatu Mbàkke wala ñu ngi ñu ngi tënku ci wax ki ki nga wax moom la ñuy wax Bachirou Cheikh Thioro yaakaar naa ne ñoom ñëpp ay doomi Touba la ñu te luy yàq Touba dañ ko def man mii it am nañu ñu ma xam am nañu ñu ma xamul maanaam ñi nga xam ne samay morom lañ ci waa ñu nga xam ne samay morom lañ ñi am diggante 65 ak 70 ans xam nañ ma bu baax ndax ñenn ñi ñoo bokk daara ñoo bokkoon daara jàngal xuraan ñenn ñu noo bokk yaroo foofu ci Touba kon xam nañ ma bu baax waaw waaye nag léegi nag ni nga ko gisee xam nga fu baax fu baax fu nekk rek dana am ñu fay jéem a róoru eh, di yàq te dañoo singali Touba nag moom xam nga barki démb rek dégg ñu am mbooloo ñu naan dañoo dem naan dañuy def dañuy tawaaf ci jàkka ji wala kenn mësuñu ko dégg te yàlla xam na ne suñ suñ suñ xalif général bi yëgu ko tinu waaye ñi yàq dañoo bari moo tax dañuy lu bëgg rek dañu koy def lu ñu bëgg a def ci yàq rek dañu koy def te itam bëgg a jaxase mbokk yi waaye li nga xam ne man moom laa nekk gëm ko muy alxuraan ak sunna yaakaar naa ne loolu la sëñ Touba doon wootee loolu la alaaji Malick si doon wootee loolu la ñëpp doon woote xanaa lislaam moo dem ba rek moo tax coow li bari waaye Touba moom li ko sos mooy alxuraan ak sunna eh, waaw li nga xam ne moom la sëñ Touba jàngale dara génn ci alxuraan ak sunna moom ci boppam moo wax ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi loolu moo ko wax ñëpp xam nañ ko kon wóotewul woon leneen lu may eh, lu may alxuraan ak sunna lu may lislaam lu may lislaam léegi nag nit ñi moom wax dëgg yàlla même yonent yi sax comme ni ko comme ni ko alxuraan waxee wama arsalna wama arsalna ilayka min wama arsalna min nabiyyin wa rasulin illa ida tamana alqa sheytaanu alqa sheytaanu fi umniyati wama arsalna min rasulin eh, wala nabiyin illa ida tamana alqa cheytaanu fi umniyati kon maanaam yàq euh, ab projet bu baax kooku moom euh, yàgg na fi surtout nag ci wàll diine te itam wax dëgg yàlla fi mu ne nii ñëpp xam nañ ne Sénégal euh, tension am na fi waaw léeg-léeg sax tension politique day ànd tension religieuse ndax dañuy dañuy man maanaam politique dañuy impliquer religieux ci seen affaire waaw les seen affaire donc loolu moo tax euh, tension yi di am léeg-léeg te tension yooyu dañ ko war a soigner ay symptômes la dañ ko war a soigner sinon day day dem ba indil euh, ëppi loxo. kon daal ci biir euh, lu nga xamante ne ko suñu noonu wallaay sax defuñu lu lu lu na xanaa kay maanaam film yeeg ak ak réseau yeeg yooyu ci bitti lañ ko defee. waaw am na sax lu ñu ci defee ci biir waaye alaa ko leexal loolu doonul ci li nga xam ne moom la sëñ bi digle waaw sëñ bi ñoom fa yebal man xam naa leen waaye waxu leen ni leen ngeen filmé leen ngeen dem ci ay réseaux sociaux waaw am na fa nag ñu koy dóoral sax moom am na loolu moom am na am na ci ci dëkk ba am na ci ci Sénégal waaw. na ko natal. natt ci ëkk. ñu <laughs> naa ne li wax leer na na yi. ci gémmiñu borom la dàqe. Euh, bu weesoo loolu euh, euh, docteur. Mm-hmm. fan yi comme Sénégal ñu ko xamee. Mm-hmm. d'après jege bi nga xam ne ko jege Ramadan. Mm-hmm. gis nañ ne am na ay lijaan wala boog. Eh, tàqalikoo bu xawoon a tar ci côté Konakoog bi. Hmm. ba ñu déggoon na sax def nga ci benn sortie bu nga xam ne ñu bëri rafetlu nañ ko. ci hmm. Hmm. Eh, benn télévision wala boog benn rajo. Eh, nga wax ci wax ju am importance. ci côté boobu mais bu weesoo loolu. am na yeneen kàddu yi nga xam ne à chaque fois mooy jëm ci lu aju ci. li euh, ñu tuddee conseil supérieur islamique. bu mhm. nga xamante ne ko war a taxawal pour loolu a taxaw. kon mhm. loolu wax ci benn histoire bi nga xamante ne. jokkoo mhm. woon ak président de la république door gis ñu euh, ngi door a gis njëriñ bi. ndax jàpp nga ni conseil supérieur islamique mun na am Sénégal d'après ñu euh, ko fi doon jéem te dafa mel ne taxul mu sotti moom. waaw li nga xam ne sax moom la euh, suñ mbokk yantaam yàlla na ko yàlla yaram doon jiite euh, moom itam ñu ngi ko tuddee woon conseil supérieur islamique bañ koy sos woo na ma ca bi ma wooyee dama ñëw déglu leen ba pare ne leen lii ngeen sumb dafa rëy ba nga xam ne di su ko yaatal ci ñett ak ñeent ak juróom dañ koy yëgal kilifa yépp kenn ku nekk indi euh, yebal sa ndaw bu ko defee ndaw yooyu ñooy waxtaan ba d'accord ci ne kenn moo ñu jiite waaye kenn du jóg rek daal di ne man maay président bi daal di di di ko la neex il faut nga con il faut nga yëgal ko mbooleem kilifay diine ci biir Sénégal bu ko defee fixé ab date ñaan leen yebal ay ndaw bu ko defee kenn ku nekk am ku la représenté ñoo ñay représenté kilifay diine yi nag tànn kenn ci ñoom mu nekk président peut-être président tournante lay doon tournante lay doon mu nekk président pour at keneen nekk président bu ko defee jàmm ne waaw ndax conseil boobu mën naa mën naa seet weer mën naa mën naa def mën naa def lépp daal lépp lu aju ci lislaam rek wala mu wut ab ab comité boo xam ne bii ci biir ci biir conseil bi lay doon euh, togg ko sant ko muy toppatoo affaire weer bi. am na sax lu li euh, mhm. benn genre conseil religieux. Mhm. Euh, système bi nga mm-hmm. def benn structure boo xam ne dafay représenter euh, ñi seq diine ji. loolu du lu du lu munta ñàkk waaye nag il faut que ñi <laughs> ñi nga xam ne ñoom la concerné déggoo waaw ñàkk déggoo moom lu tasaaroo ci Sénégal daal léeg nga dégg ñu bokk benn benn tarixa ba pare di tamante lool ñëpp gis nañ ko. waaw loolu kon loolu eh, ak association yi bari pare léeg-léeg day am ñoo xam ne dañuy bëgg a jiite ba nga xam ne eh, dañuy dañuy ŋànk ci benn association duñ ko bëgg a bokk kenn ak ay féewalu daal loolu daal moo tax eh, defuñ ko waaye man yaakaar naa ne am na ñu responsable ñu nekk ci réew mi ñoo xam ne ñii bu bu leen président bi convoqué woon ne leen dama bëgg ngeen daje yéen mettre ma en place benn conseil supérieur supérieur islamique yaakaar naa du ko bañ puisque de toute façon conseil supérieur islamique muy ci Mali muy feneen du loo xam ne day xeex état bi du loo xam ne lii day xeex état bi waaye ci wàllu diine bi nga xam ne état laay mënu koo saytu moom moo ko fay féete di ko saytu ci anam boo xam ne bii day indi jàmm ci réew mi ndax léeg-léeg euh, ñàkk a déggoo day am diggante ñi ngànk diine ji ak euh, ñi ñi ngànk état bi ba tax mu am ay ay jafe-jafe ak ay ay ay ay ay jàng ay jàmmaarloo euh, bu ko ñuy wax terrorisme waaye en réalité fii ci Sénégal moom am na fi ay nit ñu crédible ci wàllu diine ñoo xam ne ñi bu ñu daje woon euh, yaakaar naa danañ mën a mettre en place en conseil ak noo ko mën a tuddee conseil supérieur ou autre euh, waaw tey itam xalifa général de Mourides mën na ko jël xalifa général de Tidiane mën na ko jël euh, président bi ci boppam mën naa mën naa mën naa woo ay nit convoqué leen maanaam ñu contacter service yi bi kenn ku nekk joxe ab représentant représentants yi daje daal di daal di taxawal ab benn conseil supérieur waaye nag li may ragal surtout mooy ñuy exclure ay nit parce que boroom xam-xam buy woote ci lislaam li muy wax leer nañ ñi nga bëgg ko diaboliser ndax naan bokkul ci sa booloo wala yooyu loolu moom lu indi jàmm ci Sénégal ndax Sénégal naka naka jekk li ñu wax diversité dafay mas a am ci wàll même ci wàllu diine ah am na ci jamono histoire joo xam ne ji euh, amuñu woon benn tariqa ñu dem ba 16e siècle tariqal ñëw fi ñu dem ba 19e siècle tarixa tijaan yi ñëw fi après ñu tarixal murit ñëw ci fin 19e siècle ak tarixa laayeen waaw nikki noonu am na fi ñoo xam ne ñi bëgguñ ci tarixa waaye dañoo libre waaw ay citoyen lañ bu leen neexee eh, ñu taxawal seen mbooloo tudde ku mbooloom lislaam di liggéey comme ñëpp donc kenn munta forcer ñëpp pour ñu nekk ay ibaadu wala nga forcer leen pour ñu nekk ay murit wala nga forcer leen pour ay nekk tijaan wala laayeen loolu munta nekk nit ñi ay gor lañu ay jullit lañu ay xel lañu yor dañuy xalaat wax dëgg yàlla kenn mën leen a forcer ci dara du président du keneen. Euh, sëñ Khadim kon euh, nekkul daal lu impossible pour ñu taxawal ko Sénégal euh, dañu temps bi moo ñu xaw a xët tuuti hmm. euh, bu fekkente ne mën nañu jàll ci euh, waxtu yi aussi Sénégal hmm. dégg nañ aussi ay termes yi nga xam ne quand même lu xaw a rëy la hmm. ci ay force écoute wala <laughs> ah. euh, ci biir Sénégal daanaka sax kooku tuddal ree daf koy xaw a jàpp ndax jàpp nga ne terme yoon lu existe la loo xam ne xëy na population bi dañ ko xamul ay responsable yi ko xam ko wala dañ ko utiliser ngir politique ah. wala boo xëy na ñoom dañoo xam lu ñu xamul waaw li may retenir mooy ñaari terme yi force occulte ak terrorisme am na fo force occulte am na fi am na fi moom <laughs> am na fi moom dëgg yàlla occulte parce que peut-être dañoo amul jooja doole waaye fa nga xam ne bii am nañ fa doole dañuy wane seen bopp fii nag amuñ fa jooja doole waaye force occulte ça dépend ci définition bi nga xam ne moom lañ ko jox. Euh, pas cellule dormante mais les francs-maçons sont une sont force occulte. puisque du ñu teew ci kanam nit ñi di wax seen bopp ah doo leen gis ñuy def conférence comme ni ñu koy defee ñun génn génn ci biir wax donc force occulte la waaye nag du ma wax ne force buy xeex wala xeex laa la parce loolu amoo ci preuve waaye am nañ fi moom bu dee terrorisme nag moom moom itam ça dépend ci définition euh, définition bi ñu ko jox puisque léegi dafa am amal amalgame bu am maanaam léegi ku xool nit mun neexu la sax nga ne terroriste maanaam ku dem di di wuti as ndaw pour bëgg ko takk mu dàq la nga ne famille bi ay terroriste la donc terroriste dañ koy foyee fi mu ne ba nga xam ne kenn xamatul lan lañ jublu waaye terrorisme pour man mooy koo xam ne kii dafa jël ngànnaay yi bëgg a ay xalaatam moo xam muy jullit moo xam muy chrétien moo xam muy ko mën doon koo xam ne kii dafa jël dafa jël ay ay ngànnaay en dehors de l'état bëgg tëral ay plan bëgg a force bëgg a ay ay bëgg-bëggam euh, nit ñi te du te du te du hésiter bu ko mënee dal ci kaw ay nit ñoo xam ne defuñ ko dara loolu mooy terrorisme donc bu dee ñoo xam ne ñi dañoo d'accord ak état bi ci turu diine loolu terrorisme parce que am nañ ci am nañ ci droit bu dee ay politiciens itam yoo xam ne ñi dañuy dañuy def léeg-léeg ay excès loolu am na ci réew yi nekk waaye nag jël ay ngànnaay pour xeex état bi wala nga xeex benn benn démembrement ci communauté bi loolu moom terrorisme la moom waaye te loolu wax dëgg yàlla man xóoba ko fi def puisque wuute yi bari na ci Sénégal waaye nag gisaguma kenn ku jël ngànnaay ne maanaam lii ma nekk dama koy imposer ñu ci des. kon jàpp nañ ne kon xëy na ay affaire de exagération politique la kon euh, ci ndaxte am na ñu bëri sax boo gisee ñu koy qualifié noonu. ak li ci tiit am ci xaw ci am paranoïa tuuti. Mm-hmm. mooy c'est parce que gis nañ ne France. Euh, euh, mi ngi gën a yokk li nga xam ne moom mooy effectif bu armée ci côté Afrique de l'Ouest bi. Mm-hmm. day xeex terrorisme moom tamit <laughs> aussi. waaw euh, tombeek ñun tamit aussi ñu am yenn situation yi nga xam ne crise politique la. Mhm. donc bu fekkente ne dañoo am ay de d'État yi nga xam ne dañ ci wax lu toll noonu. Mhm. ñeneen ñi tamit aussi di xeex France. parce que mhm. dañuy jàpp ne moom dafa ñëw pour not ñu. Euh, dañuy ragal ñoom tamit aussi jàpp ne ñële xëy na mën nañ cee dugg. pour nasaxal guerre bi nga xamante ne dañu jàpp dañu war a décoloniser. Euh, donc suñu système yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy gouverner. waaw loolu moom je suis tout à fait d' accord moom décolonisation boobu nga wax euh, dama cee d' accord bu baax léegi nag présence euh, francaise bi mun a am lu may bu fekkee état bi da cee d' te wax dëgg yàlla man bu ma sañoon suñu état yi jéem a renforcer seen armée nationale te bañ a dépendre ci France puisque France wax dëgg yàlla seen président li muy xalaat ci lislaam nëbbu ko da koy wax carrément alors kon ku mel noonu nag boo ko bëggee confier boo ko bëggee euh, accueillir ci sa kër. Euh, bu bu bëggee imposer boppam c'est d'autant plus que ñoom terrorisme dañ ko yaatal ba nga xam ne même kuy julli ji julli juróom ci jàkka ji sax moom bootul ñu wala la ci terroriste yi loolu moo tax euh, ñu war a def attention ci loolu mm-hmm. waaw bu ñu bëgg topp neex lu neex tubaab bi ba euh, koo xam ne kii xaw naa dangal di dem suuti sax ñooy terroriste la puisque terroriste moom bu fekkee ci xalaat rek la yem wala bu fekkee xalaat yu xalaat yu tuumuranke wala xalaat yu extrémiste moom la nit ki adopté mais loolu sax tane na ñun koy li ñu bañ mooy ku jël ngànnaay eh, dem di attaquer ay ay jàmbur wala ngay attaquer état bi loolu la ñuy wax waaye de toute façon man daal je crois que daal France daal il faut ñu seetaat suñu bopp suñ suñu moom ndax bu ñu ko defut mën naa dem ba jaxasee yenn réew yi ndax gis ngeen Mali bërki démb rek ñu rey ay nit man naa ñu bombardé nit tuddee ko bavure ñu wax ñaari fan ñu ne ñoom ñu ne du ba réyu réyunu ay ay ay ay terroriste mais ay réyunu ay civil mais ay terroriste lañ donc vraiment France daal wax dëgg yàlla man man euh, bañuma France puisque jàngee naa fa lu yàgg yàgg waaye nag bu ma sañoon daal suñu réew yi daal ñu jéem a góorgóorlu nag pour euh, suñ force suñ force nationale de yi ñu renforcer leen euh, te itam wóolu suñu renseignement yi te itam di di di def ndànk nag ci mbir waaw puisque ñu baree bare ñoo xam ne ñii kenn xamul fu ñu jógee dañuy nekk ci réew mi te léeg-léeg ñuy commettre ay de provocation Euh, daal di tuumaal kañ kañ ko seqal ne terroriste la loolu nag bu ko jëlee rek daal di daal di daal di agir boo tudd da nga ko réccu alors événement yi événement yi fi nekkoon jàll na ci jàmm kilifa yi dox nañ ci ay tànk euh, tey te nag wax dëgg yàlla il faut que état bi jëlee ci ay leçons waaw parce que y a des difficultés économiques y a des problèmes culturels a y a des problèmes de toutes sort donc li fi xew mu amee moom kenn d'accordu ci a yàq ay ay ay fi jàmbur. Ah, jël ay marchandises yu jàmbur attaqué ay commerce ak station service kenn d'accord ci waaye nag eh, loo gis rek am na lu ko waral maanaa léeg-léeg nga déclenché un mouvement boo xam ne mouvement pacifique la ay nit profité ca pour pour def ah, pour yàq waaw ah, donc daal man duma ma jekki naan kii moo def lii kii moo def laa mm-hmm. waaye l'essentiel mooy état bi war naa eh, war naa def ay études approfondi pour xam li nga xam ne moo ko waral ci côté social côté économique étude globale pour nag euh, daal di tëral beneen politique bu bees euh, pour régler problème yi pour prévenir yeneen événement yu mel nii actuellement sax yaakaar na ñu ngi ci puisque ñu ngi def ay ay jéego pour satisfaire les jeunes surtout ci wàllu emploi mais il faut il faut euh, il faut développer boobu boobu boobu politique il faut il faut le poursuivre il faut la poursuivre te bañ a rek ay ay wax yoo xam ne yi maanaam dañ dañ koy wax waaye duñ ko def gis naa itam nag wax dëgg yàlla ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy wax ne sax ci turu état bi la ñuy pour euh, euh, pour répondre à x ou y mais en réalité euh, loolu itam loolu itam baaxul puisque événement yi daal dañ ko war a dañ ko war a étudier dañ ko war a étudier attentivement objectivement pour xam li ko waral dëgg-dëgg maanaam jeunes yi bari na ci ñoo xam dañoo kontaanul loolu moo tax ku jég ku jóg rek ñoom boo bëggee benn ñu ñu teg ca téeméer waaw yooyu nag lu ñuy étudier la euh, froidement waaye du jag jóg rek maanaam di di jéem a joxe ay réponses politiques loolu moom doyut moom. voilà ci biir loolu sax xëy na dina nekk suñu question bu mujj. Euh, docteur Khadim dañu gis ne souvent dañuy dafa am ay ay politique ay promesse yu nga xamante ne dañ koy tuddee rek euh, promesse yu nga xamante ne politique. Mm-hmm. Euh, et c' purement politique dañu jàpp ne boo tollee ci campagne war ngaa mën a wax ci politique lu nga xamante ne soo paree mën na laa wàcce. Mm-hmm. loolu tamit aussi nu ñu ko mën a tuddee mooy ñoo xamante ne valeurs yi nga xamante ne moom la Sénégalais yi am mooy ñàkk leen a wax dëgg. Mm-hmm. loolu dina tax valeurs yi di xaw a wàññeeku tuuti. comme ñi nga xamante ne aussi. ñoo féete wàllu diine ji parce que ñu deewoon éthique diine moom moo féete kaw mhm. ñoom it est-ce que jóg waru leen ñuy xaar ñu mhm. leen sollicité ci benn taxawaay ñoom it ñuy jóg seen bopp waaw euh, prévention boobu moo boobu may wax moom euh, religieux yeeg euh, chef traditionnel yeeg ak mouvement mouvement civil yeeg de la société civile ñoom ñëpp war nañ cee def seen wàll waaw maanaam mbir mi euh, boo ko politiser rek maanaam defee ne dañ maa contre dañoo contre parti sàngam moo tax ñu def li ñu def du sotti man daal vraiment euh, xam naa ni sax ay promesses yoo xam ne doo ko def moom moo politique ñoo ànd moom même dans les pays développés dañuy promettre euh, monts et merveilles mais bis mu àggee ci pouvoir bi lañ mën rek la ñuy def mën naa am sax duñu def lañ mën lépp donc loolu moom muy président de la république bi fi nekk ak ak président bi fi nekk ëllëg diglee digee lu ëpp li nga man loolu moom moo politique ànd naka jekk waaye daal li ma bëgg daal mooy qu'on soit réaliste xam ne problème am na ci Sénégal il faut chercher ce problème là jéem ko trouver ay solution mhm. lan mooy sa kàddu gu mujj yàlla maa ngi leen di sant yéen ñii parce que wax yàlla bari naa ay xarit ci média yi mais kenn ku ñëw pour laaj ba xam ndax li ñuy wax ci man dëgg la wala déet. Mhm. Euh, man nag wax dëgg yàlla kenn gënumaa nekk citoyen lépp luy rëq rëq ci Sénégal lépp luy indi rëq-rëq ci Sénégal. duma ko def du ma ko def puisque amuma feneen fu dul Sénégal benn nationalité la muy nationalité sénégalaise donc euh, bu ma sañoon daal kilifa yi diine yooyu nga tudd léegi ñoom ñëpp ñu ngi def ay effort sax surtout Serigne Mountakha Mbacké mi ngi def effort yu am solo pour pour pour pour pour que le calme waaw waaw mi ngi ci def lu am solo loolu muy def nag mboolem kilifa yi diine dañ cee war a def seen loxo ñoom itam pour réew mi am jàmm puisque ñun amuñu leneen lu may Sénégal. Mm-hmm. jërëjëf euh, docteur Khadim ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la sant itam ci sa disponibilité mm-hmm. mbokk yéen a ngi ànd seen télévision Sunugal 24 ci seen jotaayu taxawu jàngat ak Abdou Khadre Fall ñi ngi àndoon nag ci wàllu xarala gi monsieur Dramé ñu leen jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu